micro central ana mbokk internet yi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax. sant bi sant suñuy ñaari waajur ñu ngi sant teew fii ñëpp. bàyyi ñu kenn du nuyu ñëpp waaw di sant samay waajur di sant sama papa bu baax di sant sama yaay bu baax di sant waa Tëngéej gépp bàyyiwuma kenn di sant fukki pencee ñaari di sant ñëpp di sant tamit ñi nga xamante ne nii dañuy ñaanal Gamou Gueye te Gamou Gueye xamu leen di leen wax maa leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant samay entraîneur waaw. dama laa dama tëdd. lan si. xamee nga piis. waaye na Lamine ah yow bàyyil yooyu waay. non Tapha moo ko wax de. waaw ah, mais garaaw loolu du si wax. kon moom newu fi xam nga rek du ma si wax quoi. Ah. man tàmmu ma di wax si koo xamante ne nii. nekkul waxi ginnaaw du ma ko wax quoi. boo ko waxee rek jëw lay doon. Ah. moo tax ne jëw kay amu fi. non loolu la du ma ko wax incha allahu rabi. fan nga toll instant bi instant bi ginnaaw yàlla yonent bi pare naa. Hmm. incha allahu bi loolu na mu sa digganteeg moom. yàlla may ma ndam rek si kawam incha allah rabbi loolu rek laa bëgg. ci xeex wala ci bëre lan nga ko ci bëgg. nu mu daanoo baax na yàlla ma yàlla may ndam si kawam. bu neexee yàlla waaw. li ma waroon a wax lépp. maam ah. ñaaw wax na ka ah. maam ñaaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm li ma waroon a wax lépp wax na ko. Ah, waaw adversaire bu fi nekkoon daal nga mën a wax. waaw bu fi nekkoon ma mën a wax kon newu fi di ma mën a wax quoi. sa combat ak Sokh gis nañ nga def mobilisation bu doy waar. bu yéeme yàlla baax na yàlla baax na bëgg naa indi lu ëpp loolu incha allahu rabbi buñ ma jàppalee dinaa andi lu ëpp loolu bu neexee yàlla. Hmm. incha allahu rabbi. lan ngay dalal dalal sa xelu supporter yi. su ma xari supporter yi man su may supporter seen xel dal na saa bu ñu xëyee na nga may gis ma def li li ma war a def maa ngay dem di ko def yi ñoom saa bu ñu xëyee na nga may gis may def loolu. lan ngay wax kon Tapha Mbeur. dama koy ñaanal jàmm rek di koy ñaanal wér gu yaram ba ba la 24 di ñaan yàlla ma yàlla may ndam si kawam incha allahu rabbi jërëjëf balaa ngay woote Bakary. jërëjëf non man kan lépp ok jeex na tàkk. di di ñaanal Papa Yada. di ñaanal Papa Yada yàlla na yàlla yërëm xaare ko àjjana. amiin amiin Asile Balde Junior. ay Ramdan mbër yi yëpp. wallaay ñu mbokki mbër yëpp ah ñiy tëdd yëpp ñooy ñaan yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana. di ñaanal Papa Yada bu mag. yàlla na yàlla may wér gu yaram. amiin amiin amiin amiin. ah Tantan. maa ñaanal bu baax di ñaanal waa këram bu baax. jërëjëf di oo ñi may jàppale ñëpp waaw ah, mu gaaw mu gaaw mu gaaw ñi may jàppale ñëpp maa di woo. Ah. maam ñaaw wax na lépp. jeex na tàkk incha allahu baax. aja Bakary am. ah mbëri tëngee mbëri tëngee ji mbëri tëngee ji. mbëri tëngee ji ñoom ama neex. mbëri tëngee ji may ndam. comprendre nga di sant Ba Formane di sant Babou Gallé di sant Idi di ñëpp di ñaan ñëpp di ñaanal ñëpp comprendre di ñaanal ñëpp waaw maa ngi koy ñaanal bu baax maam Fara suñu benn paa bu baax bu gaañu ñu ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana incha allahu rabbi jërëjëf waay merci beaucoup loolu am na solo Bakary lan nga ci yokk ci wax ji yow foofu rek auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Lamine ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonante bi maa ngi sant samay ñaari waajur di ñaanal sama pap fi mu tëdd yàlla xa yërëm ko te xare ko àjjana euh, balaa maa wax dara Lamine presse bi ah dama leen di remercier remerciement boo xam ne am na commencement mais amul fin franchement mention spéciale ak presse bi ngërëm bi mu leen jagleel mënu ko natt sant naa leen gërëm naa leen depuis le début de l'événement yéen a ngi ciy jàpp du début à la fin franchement un remerciement la presse donc su ma jógee ci loolu damay remercier aussi équipe Yaram Aar bi di leen sant bu baax a baax a baax di sant ku ci mel ni Lat Diop Idi Mouhamed sama frère yi Abbas Diego depuis le début ñu ngi fii nelawuñu benn yoon maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant le président Gorondo yi moom munu ko sax munu ma munu ma ne sax euh, dafa bokk ci parrain yi donc ci Yaram Aar la bokk depuis ba ñu tegee affiche bi ba léegi il est avec nous depuis le début à la fin donc euh, remercie remerciement yooyu laa bëggoon def déjà di xamal waa Sénégal aussi di astafirlaa ma gërëm aussi waa CNG donc bu fi teewee tey yàlla ak ñoom la di remercier bu baax a baax le président Bira Sène di remercier Ñambe ak Maguette Sow ok di remercier aussi champion yi fi teegoon yëpp yi def seen déplacement seen ak la police commandant Thioune maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm aussi moom frère El bu Diène Kayré maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko di ko di ko di ko di ko wax daal combat bi sa combat loo ci deful rek ci yow la hmm. incha allah di woo Sénégal di wax ni carrément yaram aar euh, structure bu bees la mu ngi doog a dugg ci làmb ji donc fas yéene fi def euh, ay jéego yu am solo incha allah di woo partenaires yi sponsors yi di remercier aussi moo mon ami mon frère euh, Laay Jaase borom jox ma ko point com GP bu mag bi colis moo ci gaaw diggante France ak Sénégal diggante Sénégal ak France moo ci gaaw rapidité fiabilité et sécurité di remercier aussi moo grand moo conseiller Kandji nee naa ko yow ba ma duggee ci làmb ji yow yaay sama premier conseil bu nekk ci làmb ji borom TDR PDG maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm conseil maa ngi leen maa ngi koy dégg maa ngi koy jëfe incha allah sant naa la lool lool gërëm naa la aw sa fay mm. di sant aussi encore une fois Laye Diassé sama frère sama xarit ñoo màggandoo di ko wax ni frère jàppal jeunes yi lii la ñu lii la ñu am te lii la ñuy def di woo état aussi ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax di sant waa Sénégal yëpp di leen jox rendez-vous samedi 24 décembre fii ci arène national ambiance assurée sécurité assurée ku mënul ñëw na nga jaar seen affiche point com xam ngeen waa Lutte TV seen xarañte ak seen mën li ñuy def franchement boo duggee seen com di am lépp li nga soxla ci ay image jërëjëf merci beaucoup à tout le